waaw asalaamaaleykum mbok Sénégal duñ guddal nag dañuy def ben réaction bu ndaw rek Xamna naa wax deug Yalla Sénégal mom comme ko coupé na données mobiles yi pour boycotter le combat légitime du peuple sénégalais euh, du ñak xamna ñi ci am fi ak ñi nga xam bon euh, d'ici demain dañ am sens gis euh, les messages qui circulent en tout cas dama ndeysaan sama xel dafa dem siaga may xalat ki nga xam ne euh, dama considéré mom moy taw si taaw yi waa Sénégal yi la bok waa moy Youssou Ndour ku dem ba créer mouvement bo xam les mots parlent ne féké ma si euh Sénégal tollu diggante bo xam ne nii euh, les Sénégalais ont besoin vraiment cadeau sportif yeeg euh, nit ñi nga xam ne may na ñu am cadeau ñu am ñu am parole ñëpp ñuy peser ñu wax deug malgré les intérêts mais malheureusement euh, déggaguñ ko donc nag j'espère que moom ak ñépp ñi nga xam ni mën nañoo jóg ne kenn nit duñ ko du tax ñu lakk Sénégal ñu taal Sénégal euh, ñoo ngi leen di xaar doomu Sénégal ñu ngi leen di xaar ma xalaataat nag wax bu am solo boo xam ne nii kooku ñuy wax euh, suñu taawu Sénégal boobu ñu koy wax Youssou nuur dafa am woy bu am solo bu mu woy boo xam ne moom léeb la bu am solo encore une fois li olof njaay naan yow lekkoo si ndab warul tax nga di si xapp suuf ngeen bëgg koo xañ sa moroom Macky Sall nag loolu la bëgg a defal waa Sénégal loolu la leen bëgg a fayee mooy teraange teraange yi ko Sénégal waa Sénégal yëpp defal 2012 ba deux vingt 2024 ngay jiite réew lu privilège bu ne nga am ko am occasion def lu ne au lieu que nga génn par la grande porte nga ñëw di def petit test yi di choquer sénégalais yi di naxal seen xol amul fu sénégalais bu baax encore une fois mes messages concerne et adressé aux vrais républicains waxuma ñi nga xam ne ni seen intérêt moo tax ñu tax gumbalu nekk ay traîtres comme les collabos à l'époque de du nazisme man noonu laa ko considéré donc Macky Sall tey xam na ne moom jeexal na xam na ne waa APR seen candidat c'est compromis moo tax nag mu bëgg a xapp xapp euh, jaxase carte gi mu jaral ko nag lu ne nous avons des députés sénégalais aussi le peuple sénégalais euh, ils peuvent choisir entre la vérité l'histoire et aussi les intérêts les calculs personnels euh, may wax aussi apparemment aussi hein, ils veulent soi-disant euh, ce n'est pas encore confirmé mais annuler les parrainages def ba nga seuls les députés ñoom ñooy permettre nit candidats ça veut dire que le bon sénégalais beaucoup ay député déjà demandent mën candidater wala prétendre diriger le Sénégal ça veut dire que le Sénégal est pris en otage par l'APR et le PDS. Mais euh, ñu fàtte bu règne. le rek ne lu peuple si le peuple décide de mettre fin à ces conneries à ces crimes du taxaw rabbi le peuple gagnera parce que ce n'est pas la première fois am ñoo xamné ne yàlla jox pouvoir ñu am yenn attitude désinvolte une attitude de lâche mais terewut du ñu am ndam donc vive le peuple sénégalais que le combat continue que waruñu seetaan Macky Sall en tout cas man lu à partir du 25 euh, février waxuma sax je ne considère plus Macky Sall comme un président de la République d'ailleurs je mu suis sama sama wax parce que les gens on les juge à travers leurs gestes leurs leur actes de Macky Sall malheureusement euh, mu fi def lu ñaaw considération ak sama gis-gis ak gis-gis républicain yi am jom yépp ñi nga xam ne intérêt Sénégal mooy mooy passe avant tout ñëpp xam ne ne Macky Sall naa fekk diviser le Sénégal naa fekk poser du tort aux Sénégalais jërë ngeen jëf